jaam waa tey xool leen damay analyse an dañuy ànd ñu analyser ndaw yi comprendre ngeen donc ma may leen benn code boo xam ne code bu élevé la boo xam ne dama koy analyser euh, yéen ñëpp ngeen gis ko comprendre ngeen mais nag toog leen ngeen seetaan vidéo bi début jusqu'à la fin ndax ngeen mën a comprendre man nan lay analyser tamit dina leen dimbali ngeen mën a comprendre yan yan yan astuce laay utiliser pour di leen jox ay coupons comprendre ngeen te tamit beneen affaire di ngeen si mën a xam yenn yenn yenn yenn yenn yenn yenn affaires yoo xam ne xamoo leen ko comme par exemple Total équipe de comme un X ay équipe de va gagner sans prendre but double sens Total asiatique handicap handicap asiatique Total asiatique yéen a gën a xam daal prochain but comment comment le but sera marqué score exact 17 use score dans le score lépp di ngeen ko mën a xam comprendre ngeen moo tax ma leen di wax ngeen toog seetaan vidéo bi début jusqu'à la fin donc dañuy ñëw xool match bii nii mu nekk Lettonie contre Île Féroé Lettonie contre Île Féroé comprendre ngeen match Lettonie bi contre Île Féroé dèjà match bi boo leen xoolee euh, seen match yu mujj yi nul nul la gën a bëri comprendre ngeen euh, un un un zéro zéro comprendre ngeen mais nag parfois. tey baax ngeen yor yenn application yoo xam te ne dina leen dimbali si ay affaire pronostic pour ngeen mën a gis ngeen comprendre match yi quoi comprendre ngeen parce que tamit fekkee ne yow nekk nga koo xamante ne xamoo si match lu bëri il fallait que nga yor benn application boo xam ne dina la mën a dimbali nga xam lii bi comprendre ngeen lii nii corner deuxième mi-temps la donc lii nii mooy carton jaune équipe bii nag match bii nag dañuy ñëw def euh, joué ko ay carton jaune comprendre ngeen donc mu nekk Lettonie contre il faut donc euh, par exemple gis ngeen lii total deux virgule cinq carton jaune maanaam match bi dina am trois carton jaune comprendre ngeen donc mu nekk benn code boo xam ne code bu un virgule trois la un virgule euh, un virgule treize la un virgule treize la comprendre donc balaa vidéo bi di yàgg yenn yàgg yi nii damay génn euh, ñëwaat si beneen match je mu nekk Géorgie contre Albanie match bii nii dina tàmbali day tàmbali dix huit heures quarante cinq minutes les mu nekk Géorgie contre Albanie les gars comprendre ngeen mais de leen xool s'il vous plaît xool leen di début jusqu'à la fin nag ngeen mën a comprendre donc comprendre ngeen euh, léegi match bii parfois nag man ma épingle yi nii comprendre ngeen bu fekkee ne dafa am yoo xamante ne yooyu moo ëpp li ngeen koy joué da ngeen koy épingler comprendre ngeen comprendre ngeen donc li ngeen di def c'est simple gis ngeen match bii nii première mi-temps deux équipes vont marqué non mu nekk Géorgie contre Albanie lan mooy lool maanaam bu fekkee ne da ngeen a ñëw fii nii un fi ñu bind un ak mi bi ngeen def deux équipes vont marquer non ça veut dire que maanaam match bi ñoom ñaar ñëpp duñ dugal première mi-temps comprendre ñoom ñaar ñëpp duñ dugal première mi-temps donc bu ñëwee si match euh, Finlande contre Angleterre les gars déjà boo leen xoolee Angleterre mooy favori bi parce que match si li moom yaa gën a de match match match yëpp Angleterre contre Finlande Angleterre moo koy dóor dèjà yi moom yàgg na ay ay ay ay deux mille deux mille lan deux mille un la lan deux mille un lan deux mille comprendre ngeen hmm, donc nag kon euh, comme vous le voyez jarul ñuy dem fenn fu yàgg dañuy ñëw jox victoire Angleterre les gars sans hésiter comprendre ngeen donc ñu ñëwaat ci match Andorre contre Malte Andorre contre Malte par exemple am na ñoo xam ne dañuy gis man man ma def lii nii lii nii gis ngeen lii lii lii lii nii dañuy gis ma def ko comprendre ngeen alors que xamuñu lan la lii nii 1x plus total équipe 1 maanaam exemple équipe 1 bi ki recevoir dañ koy protéger ba pare laaj ko benn bii maanaam mais nag loolu noon parfois mooy loolu comprendre ngeen defa risqué bu fekkee ne équipe boobu noonu nekkul favori comprendre ngeen donc dañuy ñëw fi ñu bind deuxième mi-temps xool leen bu baax a baax donc match bi mu ngi nii comme vous le voyez code bu baax la maanaam match bi dina am six corner six corner code bu baax la donc damay placer match bi dina am six corner waxuma première mi-temps deuxième mi-temps mais match bi donc bii nii Hongrie la contre Bosnie Hongrie contre Bosnie la donc damay ñëw bës match bi dugg comprendre ngeen damay ñëw dugg si biir match bi léegi fii nii parfois nag gis ngeen waa kay gis ngeen ñetti tere yi nii gis ngeen ñetti tere yi waa ñetti tere yi nii ak tomb yi parfois bu fekkee da ngeen a yaa xam te foofu ngeen di bës pour ngeen mën a gis lépp lépp daal comprendre ngeen donc damay ñëw fii ñu bind tir cadré tir cadré gis ngeen tir cadré laa ñëw fi ñu def tir cadré les donc marché bi mën naa si laaj six tir cadré donte ne mën na ko ëpp mais loolu moo gën a assuré daal comprendre ngeen donc sur six tir la si laaj su ma su jeexal vidéo bi tamit incha allah dinaa leen dinaa leen dinaa leen dinaa leen affaire yëpp comprendre ngeen donc Irlande contre Grèce Irlande contre Grèce donc match bii nii du nekk match boo xam ne dina bëri ay bii parce que yaakaaruma dina nekk match buy bëri ay bii donc lan mooy total 2 lan mooy total 2 nañ taxaw fii tuuti total 2 mooy maanaam équipe bii nii équipe bi moo gën heure boo gisee équipe féetee nii xamal ni moo recevoir bu fe parfois nag ay coupe du monde amu si parfois ay coupe du monde loolu du si am parce que ay coupe du monde wala coupe d'Afrique yooyu noonu dafay fekk équipe bi nga xamante ne moo féete ni recevoirul mais équipe bi organisé rek mooy mooy féete ni recevoir équipe bu fu mu équipe bu fi mu mënti féete mooy recevoir comprendre ngeen donc euh, nañu ñëwaat nañ ñëwaat nañ ñëwaat handicap match bi nii euh, handicap européen moo si baax match bi handicap européen moo si baax comprendre ngeen si bi ma gis nii handicap européenne moo si baax mais nag hmm, bu leen fàtte ni tamit beneen affaire mu ngi nii anamu sax beneen affaire mu ngi nii par exemple à tout moment tamit mën na ko def première mi-temps bi du am yenn bii yi nii comme par exemple tey première mi-temps mën naa def match bi du am deux bi première mi-temps comprendre bi du am deux bi première mi-temps ngeen match bi du am deux donc match bi yëpp nag laa wax match ñaar eh, match deux bi première mi-temps donc damay ñëw placé match bi do am deux bi première mi-temps les gars donc euh, Pays-Bas contre Allemagne match bi tamit du nekk match boo xam ne dafay yomb kom ni ngeen ko foogee mais tamit mën na am deux équipes vont marquer les gars comprendre ngeen match bi mën na nekk deux équipes vont marquer mais nag damay ñëw fii nii bi moom damay ñëw directement def équipe de va gagner sans prendre bi première mi def no gis ngeen def no maanaam équipe équipe kii nii par exemple kii di dóor 1-0 wala 2-0 première mi-temps daal comprendre ngeen donc ñëw si bii nii Armenia contre Macedonia de nia di ngeen donc les gars euh, reste ngeen xool vidéo bi jusqu'à la fin man ni may ni may analyser coupon yi nga xamante ne moom laa leen jox comprendre parfois maa ngi gis ay gars yi naan ma naan ma jox ñu coupon mais alors que ñun xamuñu nan la ñuy analyser wala leneen bit ma sera marqué jusqu'à une certaine minute ok comme par exemple première bit bi day dugg si quinzième minute bi maanaam marché bi avant quinze minutes la première bit bi di dugg def wii maanaam boo defee côté bii nii mooy wii côté bii nii côté bii mooy non côté bii mooy oui donc wala nga def bit jus bit un jusqu'à min trente minutes non comme par exemple nga def no wala nga def oui la mooy lii maanaam première bit bi buy dugg dina dugg avant quinze minutes wala après quinze minutes non non dina dugg nga def waaw wala nga def déet fii nii tamit dina dina dugu trente minutes avant trente minutes nga def waaw wala nga def déet fekkee da def déet bu bu bu match bi ñëwee ba quinze minutes bu fekkee da ngaa def déet match bi ñëw ba seize minutes kenn dugalul xamal ne da ngay jaaf donc damay ñëw fii nii mise bi sera marqué jusqu'à quinze minutes non donc République tchèque contre Ukraine comprendre gen République tchèque contre Ukraine donc match bi nii tamit euh, damay ñëw analyser ko euh, corner fu ñu def ay corner comprendre ngeen donc euh, fii six pili de fii tamit expliqué gu ma leen ko parce que six bii nii àndul ak dara six pili de ça veut dire que ça pili de heure boo leen ko gisee mais nag bii pas si cornel yi la du ay bii comprendre ngeen si cornel yi la six pili de heure boo leen ko gisee xam leen ni maanaam match bi bu amee bu fekkee ne da ngeen da ngeen ne six pili ah ngeen def six moins de maanaam match bi bu amee six cornel seulement seulement seulement romb fa da di dañ leen di rembourser mais doo leen jàpp maanaam bu fekkee ne fii kese kese kese ngeen tegoon si code 5 bii nii ngeen jàpp ko dañ leen di rembourser mais kenn du leen jox kenn du leen doo leen jàpp doo leen perte seen xaalis lañ leen di joxaat mais bu fekkee ne da ngeen ko def fii tamit hmm, marché bi am six corner seulement kenn du leen kenn du leen rembourser dañ leen joxaat seen xaalis comprendre ngeen mais bu fekkee ne da ngeen ko def six mu ñëw sept da ngeen di jàpp bu fekkee ne da ngeen ko def moins de six mu ñëw sept da ngeen di perte kon dañuy ñëw def six comprendre ngeen bu baax la code un virgule un la donc Moldavie contre Saint-Marin Saint-Marin donc dañu ñëw fii nii total un bi un bi un un x plus équipe un comprendre ngeen donc match match bi moom kële mooy favori déjà boo si côté yi rek war ko xam donc dañuy ñëw placer victoire. Moldavie sans hésiter les gars donc victoire Moldavie la ñuy ñëw placé directement gars donc am nañ benn code cinq boo xam ne code cinq boo xam ne bien analysé la mais duñ fay yem dañuy ñëwaat comprendre ngeen dañuy ñëwaat ba fii nii euh, bëgguma jouer match yi nga xamante ne nag comment dafay tàmbali léegi parce que boobaa yéen tamit mën ngeen ko bañ a mën a jouer comprendre ngeen donc damay ñëwaat fii nii euh, première mi-temps Zappo contre Bahreïn première mi-temps les gars comprendre ngeen équipe 2 gagner sans prendre de wala équipe 1 va gagner sans prendre de but loolu war ko mën a comprendre parce que expliqué woon naa leen ko donc deux équipes vont marquer non première mi-temps damay ñëw fii nii def ko comprendre ngeen Japon contre Bahreïn donc Iran euh, émirats arabes unis donc match bi tamit mën na bañ a bëri ay but comme ni ngeen ko foogee donc dañuy ñëw diko ko dañuy ñëw fii ñu def dès que vont marquer nos première mi mais dañuy ñëw total gars yi euh, dañuy ñëw fi ñu def fi ñu def fi ñu def fi ñu def fi ñu def handicap européen comprendre ngeen donc dañuy ñëw fi ñu def handicap européen fii nii première mi handicap européen première mi-temps cote un virgule cinquante six la cote bu baax la gars yi comprendre ngeen donte ni tamit Irak euh, mën na ko def ay un zéro euh, non non non loolu loolu dafay nekk risque loolu dafay nekk fàtte naa ne tamit su ma ko defee su ma ko defee tamit euh, Iran dama koy jox lii nii nu tudd sax Iran dama koy joxaale victoire dama ko fàtte woon parce que su ma ko defee su ma su ma ñëwee rek def ko Iran dama Iran tamit dama koy joxaal victoire moo tax donc damay ñëw fii nii si bi nga ne moo gën a si moo gën a dal suñu xel mooy bii nii comprendre ngeen bii moo gën a Iran du am deux bi première mi bi comprendre ngeen donc euh, dañuy ñëw dañuy dem dañuy dem dañuy dem dañuy dem comme vous le voyez gars yi dañuy dem dañuy wàcc suufa Euh, qualification coupe d'Afrique bi laay seet nii donc mën nañ ko fi bañ a fekk mais mën nañ ko fekk si yii nii comprendre mais mën nañ ko fekk si yii nii coupe d'Afrique de nations comme vous le voyez les gars donc Mali contre Eswatini donc gis ngeen euh, déjà match bi mën na bañ a bari ay bi nag comme ni ngeen ko gisee nii donc deux équipes vont marquer première mi-temps loolu du code bu bëri mais nag dina dina dina dina dinañu permettre daal Euh, mu nekk code boo xam ne code bu tànn la donc dañuy ñëw placer fii nii Eswatini ne peut pas avoir un but premier mi dans les gars donc comme vous le voyez donc Mozambique contre contre Guinée-Bissau contre hmm, donc match bii nii Mozambique contre Guinée-Bissau gars deux équipes vont marquer premier mi-temps ngeen def non comprendre ngeen dinañu fi am quatorze match nag quatorze match dinañ ko fi am donc ñu def ñu ñëw fii nii ci Rwanda donc match Rwanda bi donc match Rwanda bi euh, contre Nigéria comprendre ngeen donc première mi bi hmm, waaw première mi-temps bi mën nañ protéger kii nii nu mu tudd sax mën nañ mën nañ mën nañ protéger kii nii mais match bi du am deux bi première mi-temps maanaam dañ dañ koy pro dañuy protéger Nigéria ba pare def match bi si boppam du am deux bi première mi-temps comprendre ngeen donc oh, ñu ñëw si match Afrique du Sud bi donc si match Afrique du Sud bi comprendre ngeen donc dañuy ñëw si match Afrique du Sud bi euh, match Afrique du Sud bi donc euh, équipe de équipe on va gagner sans prendre de but lol du code bu bëri donc dañuy ñëw fii nii di dañuy ñëw def donc dañuy ñëw pose ko fii nii match bi du am carte bi comme vous le voyez donc dañuy ñëw def match bi du am carte bi les gars comprendre ngeen donc fii nag euh, match Égypte bi la contre Eswatini gars yi comprendre ngeen donc Égypte contre Eswatini la dañuy ñëw placer euh, match Égypte bi Égypte protéger Égypte ba pare def match bi du am deux bi première mi-temps les gars comprendre ngeen dañ koy protéger ba pare def match bi du am deux bi première donc pour yéen ñi nga xamante ne aimé euh, abonné goo leen partager leen vidéo bi parce que si fin bi dinaa leen jox code bi comprendre ngeen donc Gabon contre euh, République centrale comprendre ngeen Gabon contre République centrale def leen centre africain <laughs> centre africain laa bëggoon wax comprendre ngeen def leen match bi doon centre africain do am deux bi comprendre ngeen donc Guinée Bissau contre Tanzanie comprendre ngeen match Guinée Bissau Guinée bi contre Tanzanie man ngeen def euh, deux équipes vont marquer première mi-temps mais tamit loolu du code bu bëri parce que dañu bëgg am benn code boo xam ne dina tolloo code mais les gars donc euh, dañuy ñëw fii nii comprendre ngeen damay ñëw wàcc ba si suufa suuf comprendre ngeen dama ñëwaat ba si su def match bi mooy de trois bi seulement les gars mu nekk vingt équipe gars yi vingt équipe cote non non dix neuf événement mu nekk cote vingt comprendre ngeen donc bii nii euh, maa ngi ko def maa ngi ko def ma donc gis ngeen bii nii bii nii maa ngi ko def total plus de trois trois cartons jaunes deux équipes vont marquer première mi-temps ma def non Finlande jox ko victoire Malte contre contre contre contre contre contre Andorre match bi match bi dina am six score neen comprendre ngeen Hongrie Hongrie contre contre contre contre Bosnie ma def plus de six tirs cadrés donc moins de deux buts première mi-temps Allemagne va gagner sans prendre de but première mi-temps non but sera marqué jusqu'à quinzième minute non donc euh, total plus de six six corner bi donc fii nii ñi ñooy jox Moldavie victoire Moldavia ñu jox victoire Bahreïn les deux équipes vont marquer première mi-temps ñu def non comprendre nga donc Bahreïn les équipes vont marquer première mi-temps donc équipe des va gagner équipe Iran dina am deux bi ñu def non Eswatini du am benn bi première mi-temps comprendre donc Guinée-Bissau contre Mozambique les deux équipes vont marqué première mi-temps non Nigéria ñu protégé ko ba pare ñun di première mi-temps match am deux bi comprendre ngeen def match bi du am quatre bi donc Égypte ñu protégé ko ba pare def match bi am première mi-temps deux bi donc Centrafrique ñu def match bi du am deux bi euh, Centrafricain du am deux bi donc Guinée contre Tanzanie match bi du am trois bi bu amee trois bi ñu remboursé ñu donc nag lan laay def damay pause vidéo bi dem. def dépôt ñëw def dépôt expliqué leen ma joué ko seen kanam voilà sama gars yi comme ni ngeen ko gisee def naa dépôt cinq mille francs donc moom laa si teg donc dix neuf événement la donc su ma si tegoon tey cinq mille francs dina fay benn cent mille francs les gars donc damay miser comprendre ngeen comme vous le miser naa donc gis ngeen coupon cent mille francs baa ngi nii donc comme vous le voyez dix neuf la vingt cinq mille moom mii de mu fay gis ngeen donc carton jaune trois carton jaune Albanie contre Djibouti deux équipes vont marquer première mi-temps donc Angleterre victoire Andorre six corner Hongrie contre Bosnie six tirs cadrés donc Irlande contre Grèce deux buts première mi-temps non euh, pays contre contre contre Allemagne l'équipe devait gagner sans prendre de but première mi-temps non Macedonia contre Arménie bii sera marqué jusqu'à quinze minutes non donc gis ngeen gis ngeen daal muy noonu léegi lan lan moo si des ma jox leen code bi code baa ngi nii eh, non non code baa ngi nii code baa ngi nii anamu code baa ngi nii enregistrer gis ngeen comme vous le voyez dama koy capturer euh, pour ma mën ko envoyer ñeneen bu fekkee ne soxla nañ ko. gis ngeen donc bu leen fàtte aimer vidéo bi ngeen partager ko ak ñeneen gars yi donc jaajëf yéen ñëpp